qui est très discret ak sëñ Muntaxa mooy visitu lëndëm bu gaaw boobu loolu moom bi mu demee wax na ko na ko bi ñu weetee donc man li ma jàpp euh, mooy li sénégalais yi bari jàpp que la première pour et tetre prise à dépourvu à moins que kon mu doon def cinéma force ñu première dame ñu première dame dañ koo fal fa la ñu ko di dañu ko mën a forcer mën na nekk waaye lu leneen lu ci mënti am tamit dans la semaine on a vu sortie des avocats de Ousmane hmm. ñu ne déposé nañ ñaari recours benn ba ca CEDEAO benn bi fii ci Sénégal. Hmm. ndax bu aboutir itam. ah attendons de voir rek de toute façon la haute cour de justice de la CEDEAO li mu wax gis nañ ko gis na ni carrément Sonko dañ koy ërtal gis nañ ni ñu dissoudre parti bi jaarul yoon et cetera et cetera loolu kay c'est du rendu. c'est du rendu que yàgg naa joxe ay verdict te ko topp. mais loolu gàcce la. ci ci ci ci ci ci ci ci euh, suñu système bi en réalité. waaw waaw dëgg na yàlla gàcce la euh, bu doon lu leen favorable lekkoon voilà ñu ngi koy revue de presse ñu ngi koy wax et cetera bu nekkoon dañu wax ni way dis parti bi dañ ko war a dissoudre Sonko warta bokk ci élection yi wax dëgg neex yàlla suba suba nga gis le ministre porte parole dem TV5. Hmm, yoon. dem TV5. Euh, Namouri Dasso invi euh, Dosso invité ko wala euh, Dominique Cimbakala invité ko mu def kii am bu paree ñibbi loolu moom <laughs> xëy bu leen arrangé wul communiqué la ñuy génne menacé TV5 <laughs> sama gars yooyu la ñuy def de menacé leen ne leen parti pris et cetera yëg wàcc mais bon attendons daal de voir. de voir ce que ça peut donner. quels les fruits de cette de ces deux actions sur le plan judiciaire. d'accord à l'échelle panafricaine voilà mais ñu ngi ci wàllu ci wàllu politique am na loo xamante ne ni nag euh, ay bés bi am na fi hmm. lu doy waar sax ñuy jaale waa ngor gi yëpp hmm. mooy ndaw soosu ñuy wax Marie Guèye hmm. ñàkk bakkanam ca ngor dem na ba fi mu toll nii nag moom population ba ak takk der yi daa mel ni neexootuñ de depuis seen gis nañu chaque euh, instant am luy xew foofu loolu ndax nekkul précédent bu dangereux ci zone boobu noonu une partie de de la capitale sénégalaise. non man li ma leen di wax rek mooy li xew avec le euh, à Nanterre avec la mort du jeune Nayel Nayel benn policier daf ko arrêté mu luye oto c'est un c'est un récidiviste ngi dégg que Dieu ait de son âme bi mu ko arrêté mu bañ mu dóor ko bal c'est le procureur qui est sorti pour faire une conférence de presse wax carrément nan la ci état bi. au niveau de sa responsabilité war a taxawee la police des polices jël enquête bi ñu teg affaire bi ci yoon sawaay gars yi dañoo manifester pendant des nuits yàq dëkk bi fépp même les zone euh, à valeur résidentielle gars yi dañ faa dem tojate ko ay Montpellier xam nga Montpellier le sommet Afrique France je pense de décembre 2021 foofu lañ ko doon defee donc gars yi dañu manifester ba pare ay manifestation de nuit est-ce que ci déggaat keneen ku dee. ñun lan moo tax Sénégal fi mu nekk nii maanaam nit ku dee comme mbuut bu dee ñooyam ñu banaliser dee quoi ñu banaliser dee et pourtant ñun suñuy textes yi ak suñuy loi fan lañ ko puiser c'est d'extraction française lan moo tax ñoom li ñu mën te li ëpp ci ñoom. jànguñu alxuraan li ëpp ci ñoom xamuñu xala laaw xala rasul ñu mën a am dose d'humanité boo xamante ne moo leen di permettre lu ci nekk dañuy def la différence tey bu doon un kayit dafa sonal par exemple les forces de défense et de sécurité ñu koy wër fu nekk gisuñu ko mais munuñu ko gis lu dañoo collaborer avec les populations mais lan moo tax loolu mënuñu ko mettre de rigueur mettre ko en valeur cardinal de telle sorte que ñun ak policiers yi ñun ak gendarmerie yi ñun ak douaniers yi dañuy nekk nekk boo xamante ne bii kenn duñu àtte. c'est ça moo tax. mais man man je ma man cest dama amul explication bi man j'ai pas l'explication parce que li ñu wax contrôle de routine ñoom ñoo ko sañ a def seen charge publique la bokk ci seen mission régalienne la bokk mais contrôle public par conséquence wala conséquence dee topp ci non loolu kenn mënu koo expliquer. personne ne peut l'expliquer. il y a fa amaat fa. waaye dama ne loolu kay. waaw du fa amaat non mais attendez man de toute façon. de toute façon te qui se passe moom dans ce pays man daf ma jaaxal parce que nit mënoo ni dama ko ne taxawal taxawul dama ko laaj pièce am jox na ma ko après et cetera et cetera jox na la sa pièce mais attends ba pare jigéen la quoi. ba pare jigéen la sëriñ bi gis nga moo tax Idrissa Seck bi ñu ko arrêté li mu jëkk a def bokk ci déclaration maa ngi nii dara xob xob euh, dara xuriw dara dalum lu ma dal seen loxo laa jëm lu ma dal ci ñoom la bàyyeeko parce que il sait mhm. mais bu ñu demee ba mais est-ce que xam nga am na ñoo xamante ne jusqu'à présent jusqu'à présent maanaam ou bien jusque récemment parce que euh, mën nga dem par exemple euh, nu ñu koy waxatee daaf même si c'est un espace de de police et cetera en civil comme en tenue mais am na ñoo xamante ne jusqu'à présent boo leen nee sa carte d'identité yaa ngi koy retirer police daa di jaral duñ dem. Mm-hmm. mais déformation loolu baaxul. Mm-hmm. parce que de toute façon c'est des civils un tenue. mun naa ko expliquer noonu. Mhm. bu ñu subee seen tënk. bu te est-ce que xam nga ni ñu li ëpp ci policiers yi li ëpp ci takk der yi sax ay civil lañu. Mhm. comprendre nga. Mhm. donc moi je pense que ni aujourd'hui il est plus que urgent ah. non seulement ñu def ay enquêtes yu leer situer ay responsabilités mais beneen bi beneen bi non franchement ñoom dañu war a gën a xam leur niveau de responsabilité ñu xam ne ñoom ci askan bi la ñu bokk. mais ak sorti bu procureur ndax nekkul luy gën a yokk taal bi. ndax bu demee ba naan. Mm-hmm. autopsie bi dañ ko ñoom joxe nañu autopsie famille bi ne déedéet mais procureur bi génn bo si ci li mu waxee mu ne xawma décès bi est dû à benn pancréatite aiguë hémorragique ak benn absence de signe traumatique famille bi ne loolu mosul am. yaa de des médecins sax yu génn ko mel ne docteur Babacar Niang di wax ne loolu insulte la ci ci wàllu médecine ndax te lii nii bokkul ak lu mën a pro euh, lu mën a jur dee bu mel. de toute façon moom say maanaam say. say non say moom man mosumaa gis ku mu rey maanaam say bu ñuy wax daanu rab say. say man gis naa koo xam ne say na sama kanam mille 2009 2010 nii nii may wax ak yow nii nii may wax ak yow nii muy dox ay soxlaam hmm. waaw. donc loolu man xaw ma ban domaine la man xaw loolu ban science la quoi franchement donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure mais c'est la question mooy lan moo tax à chaque fois bu coow amee autopsie bi bu génnee aw nii famille bi ñëw ne lii du noonu. mais est-ce que bi noonu la war a jaaree. waaw loolu c'est-à-dire est-ce que l'homme de l'art bi ko war a def moo ko def. te a jege. non mais attendez c'est-à-dire est de l'art cest problème Sénégal xam nga mooy lan ku ci nekk parfois da ngay wax ci loo xam ne du sa domaine. loolu de bëri na fi moom tutologue yi bëri nañ fi. loolu mooy problème bi lu seul problème de ce pays c'est ça. Mhm. malheureusement nag moo tax Sénégal li ñu doon xeex depuis 63 ans mooy kon di fi nekk am na ñoo xamante ne ils se sentent investis d'une mission de dara du ci fekk. Mhm. barke alxuraanu karim c'est-à-dire d'une mission de dara du ci fekk. mais mets à la place de la fille bu doon sa fii la. mets-toi à la place du garçon bu nekkoon sa doom la mais doo ko nangu doo ko nangu mais da ba léegi. par exemple même bu ñuy def ay opération deux roues ci gis ay boy yoo xam ne c'était devant moi hier dañ leen di arrêté boy dañuy bañ dañuy daw donte ñoom ñu def loolu parce que yoon moo leen arrêté mm-hmm. mais parce que dafa am benn sentiment de peur xam nga tey ji bu doon waaj bu la arrêté yoroo kayit mais mu wóor la ni te pourtant loolu war na mën a nekk quoi cest à mu nekk loo xamante ne ñun dañ koy dañ koy en fait dinañ ko jaarale ci yoon ci yoon duñ la saaga duñ la tëgg mbéj wala bu ñu la yóbbee sax boo yeggee ci ñoom. no bu doon daf lay wóor ni par exemple am na ñu mel noonu. man gis naa un commandant boo xamante ne lors des mars de deux des événements de mars 2011 daa jël dix mille francs jënd na ndox mu sedd jox booy calmer leen. Hmm. gis naa ko calmer booy c'est-à-dire bu la wóor ne bu la arrêté wax ji daf koy jaare ci yëfu nite daf koy jaare ci yëfu maanaam. Euh, maanaam maanaam maanaam teg ko ci yoon c'est-à-dire sensibiliser la ne la sa waay ñun li ñuy def nii pour yow sa sécurité la kese yow boo daanoo fii gaañu da ci man lay met ci yow lay met cest à nga wax ak moom mhm. mais waa ji day ruus am njàngat am njàngale ba pare nga yëkkatu xam nga lu tax mhm. bu demee sa bu moom bu ñibbee mais saa yi tey policier bi ma tajal geen non kooku yàlla na ko yàlla fay quoi. Mhm. kooku tey xoolal dafa wax ak man xoq xam nga booy noonu la ñuy waxee. Mhm. dëgg la ma wax quoi. Mhm. booy su may xëy suba di dem Sandaga wala fu ma gën a jege damay jëndi kas kas 3000 lay gis nga loolu bu ñu ko woon. dootuñu arrêté kenn. muy ci wàllu port de casque. këyit noonu et cetera et cetera mais bu dee yow li ñu waa booy yow looy dootal ay damay xoolal am fu ñu waxee ak yow. ndax kële noonu la demee sama yaay jurul xaw ma lan genre wax yooyu. comprendre nga am fu ñu waxee ak yow nga delloo ko ñu bokk a bokk la takk la yenu yóbbu boo fay génn boo amee chance dëgg ngi urgence wala réanimation. waaw ay wulli de non mais attends mais cest à loolu aussi tamit quelle est l'explication quelle est l'explication te loolu pourtant lu mën a nekk la ba pare yow loolu ça demande mooy defar xam nga lu tax boo fa nekkee di dóor ak weranteeg yooyu yaa ngi perdre ay calories yoo xamante ne bii amaana sax du la jural benn tuyaaba. Mhm. mais imaginal tey nga wax ak moom sensibiliser ko comprendre nga. Mhm. xamal ko ne ko saa yi lii ngay def nii dóor dàq bi nii amul benn njariñ parce que boo ma rëccee am na beneen point fële. Mhm. kooku amaana melool ni man comprendre nga wax ak moom quoi. grand dina defar këyitam grand bu waree def visite dina def visitam bu waree ut assurance dina ut assurance am. port de casque di ñaari casque sax lay wut. Mhm. pour buy supporter kenn. pour buy supporter kenn mais duñ ko def da ngay gis ñoo xam ne danga leen di arrêté booy yi bañ ñu dàqe leen ñoom sans moyen de mobilité. Mhm. xëcc ci gannaaw yëf yi daanu ñu xëccoo nga doog a yenu yóbbu loolu daf ko jar tey jii mënoon nga jéem a def loolu nit ki bifurqué wu nga daanu gaañ yow man gis naa koo xamante ne. pourtant ay paase rek am na ko fi décédé ndax loolu. Ah. ci Dakar fii. yaa ngi dégg man am na koo xam ne moom ma ko nettali maa dem seeti ko ñuy waxtaan mu ne ma man sëñ Mansour li tax man sawaruma ci opération deux roues avant am bés ma génn def opération deux benn boy bëkk ma sama genou bi ba léegi maa ngi koy faj ma jël moto bi jàpp booy bi benn doomu takk dara bu garaade la ñu libéré booy bi nee moo tax opération deux roues sawaruma ci c'est compliqué en tout cas. comprendre nga donc moi je pense que ni il faut plus d'humanité. plus de sensibilité plus de citoyenneté. plus de sensibilisation plus de comment dirais-je encore plus de de de de de, de vraiment de de de de comment dirais-je encore de sollicitude xam nga euh, pour que vraiment parce que ñun ñëpp soit on est parce que pas on est mais tous on est fils de quelqu'un policiers magistrats journalistes. Mm-hmm. postière inspecteur euh, euh, des impôts et du domaine euh, et cetera et cetera donc. Sénégal ñu ñoo ko bokk en tout la xew ca Ngor moom il est temps. non li xew Ngor moom kenn mënu ko expliquer. c'est-à-dire kenn mënul expliquer loolu. bëgg a loxo. non am na fa benn yoon amaan na fa te bu maara deytaale. boobu ah. mooy dina am. day na waar de en képp koo xamante ne nii xamoon nga kooku ñàkk bakkanam. Mm. wala nga jege ko lool. waaw tuuti tuuti meng de nee moom. tuuti meng ñu koy jaale bu baax a baax. en tout cas yàlla ko yàlla xare àjjana suuf ci kawam te yeexe ñu ko njaboot gi mu fi bàyyi tamit dégg nañu bàyyi na fi ñaari tout tànk yu ndaw ay seex hmm. yoo xam ne amuñu sax xaw ma at ou deux ans en tout cas yàlla na leen yàlla taxaw hmm. ba ñu màgg nekk ñu ñu ñu dégg ci réew mi te lépp lu ñu teg seen loxo yi tam yàlla def ci jàmm en tout cas Mansour maa ngi lay jaajëfal bu baax baax mais maa ngi lay fay bu baax a baax hmm. du ñaan yàlla Sénégal yàlla def fi jàmm amiin amiin amiin que et équitable mmh. au des des Sénégalais qui le mm-hmm. désirent mm-hmm. au soir du 24 ñu tànn ki nga xamante ne jàpp nañ ni xaalisu pétrole bi di nañu ko delloo au soir du 24 ñu tànn koo xamante ne bii xosantoo yi fa amoon du fa amaat mm-hmm. comprendre nga au soir du 24 école yi nga xamante ne bii ñu ngi ci mbënd euh, yaa ngi dégg dootuñu dund yu mel noonu au soir du 24 le secteur informel de manière générale ah le secteur de l'artisanat li mu war a mën a jur. ci emploi mu jur ko. pour sénégal yi franchement mën a toog ci dëkk bi quoi ñu liggéey dëkk bi. Mm-hmm. waaw koy jaajëf. jaajëf Serigne Mansour Sy Cissé moom moo nekkoon tey jii ki ñu àndaloon te comme ni ñu koy defee aser bu jot euh, toog ak moom ngir daal di euh, faram-fàcce li nga xam te ne moom moo gën a fës ci actualité ci ayu bés bi. en tout cas yéen ñi itam yéen ñi doon euh, jox seeni i commentaire ak itam contribution ci euh, live bi gis nañu ko merci beaucoup en tout cas de votre fidélité renouvelée à Sénégal 7 di leen wax rek bu leen toxal seen seetaan wooy leen di ànd ak ñun mais partage leen aimé leen liké leen euh, def leen ci lu ngeen mën commenté leen waaye aussi interagissez ak ñun ñi bu ngeen ñu posé seen i question rek dinañ ci tontu incha allah ñu àndandoo ak yéen daal di atteindre objectif yi ñu fixé ndoo ci at mi jeex en tout cas